Hmm. peut-être si ginnaaw loolu aussi ñu ne Macky Sall euh, demoon na Paris euh, ñu ne jëlee na fa xaalis bu bëree bëree bëri. dans le cadre de la transition énergétique ah man je pense la transition énergétique elle est importante. Hmm. parce que quelle que soit bu ñu mën a considérer comme étant la source de l'énergie il y aura ce appelle le phénomène de la rareté bu ci mënti nekk nag il faut ñu xool lu ñu koy yaxanale. dañ ñun nit ñi ñoo fi nekk fii ci àdduna bi mais ñun ñun rek nit ñu nekkuñu fi ñun nit ñi ñoo fi nekk mais ñi ko bokkal comme espèce dañoo bëri mhm. alam bi la de mhm. manière il faut ñu leen di sóor ñu mhm. leen di sóor tey si jumtukaay ñu ñuy ñu leen di soor aussi suba ndax la ñu mën a def ba ñun ñu mën see génn ba am lu ñu mën a bàyyil suñu ay njaboot ñu mën koo jëriñoo ba mën aussi am lu ñu bàyyil àdduna bi donc sur le principe nous sommes totalement pour que nit ñi di xool naka la ñuy def ba arriver à ce mais que dañu ko war a dicter wala ku nekk da war a indi li nga moom nga teg ko ci table ci ñu xool. Mhm. da wax nañ ko léegi yaa y a des pollueurs. des producteurs pollueurs il des consommateurs. Mhm. ñun est-ce que nous sommes producteurs ou bien est-ce que nous sommes la bonne question. Mhm. est-ce que le consommateur doit payer ou bien est-ce que le producteur doit payer. nous pensons que ce sont les producteurs qui doivent payer et qui doivent supporter. comme oui on est totalement en phase nee naa la moom nous sommes en intelligence. en cohérence sur énormément de choses non du lii rek sax nag ma dama koy suivre maay grand moom ma di ma suivre mais man maa koy suivre loolu moom yàlla moo ko def mënuñu si dara. mais nag dëgg du réeri nopp ah. dëgg du réeri nopp c'est ça la vérité mm-hmm, aussi. Mm-hmm. léegi xaalis boobu ñuy jot te fii ci ginnaaw dañu jotoon xaalis dañ cee waroon a kontaan képp ku ñuy jox xaalis nag même bu ñu la koy lebal dañ cee war a kontaan. ndax day am lu muy indi ci yow am lu mu la jox pour nga mën a def dara. Mm-hmm. mais ñun fekkee ne Sénégal lañu am na ñu xalaat gis nañ ni ñuy doxalee dañoo war a tiit. waaw ah. dañoo war a jaaxle. ñu war a tiit ndax tey ñun la diggante onze ans yi lépp nañ fi douze mille milliards. Mm. chaque année jox nañ ko six mille milliards de budget <laughs> ñu ne fu ñu ko def ay rapport a ngay dégg. Mm. rapport réalisation. Mm. sinon bu réalisation amee ñi ci jëriñu tuuti la ñuy nekk. ce sont des dépenses de prestige. Mm-hmm. dépense ñu loo xam ne nit ñi ñoo koy mën a jëriñoo man damay liggéey tubaar fakkaal la ma moom suma weer bu deewee ma mën a fayeeku ñi ma dendeel ma mën a def samay dépense dimbali leen mais man lépp lu ma doon jënde ñaar dërëm te ñeent fukk laa koy jënde te li may am dara yokkuwu ci inflation un franc yokkuwu ci rien du tout dara yokkuwu ñooñu ma doon dimbali naka laa leen di dimbalee mm-hmm. état aussi bu deful ay effort jàppale ñu pour ñu mën a dimbali suñu bopp mën a ñoo ndax nañ leen di dimbalee mm-hmm. c'est bien ñu jëlee fa xaalis mais xaalis boobu lu tax muy metti toujours dañu ko jox su ay condition te suñu ko joxee su ay conditions remplir ñu conditions yi xaalis bi du mës a egsi bu ñu la ñamalee benn yoon remplir yi parce que da nga koy am dugal foo ko dugal yow tamit. ok ñuy xaar conditions yooyu di laaj des résultats par mhm. na fee am. espérons que cette fois-ci dina ñëw. <laughs> que dina ñëw dans les délais. dinañ ko mën a jëriñoo aussi. dans les délais dinañ ko dugal fi ñu ko war ko dugal fi ñu ko war a dugal. lépp lu ñuy def. Mm-hmm. waruñu ko def pour seen bopp. dëgg lépp lu ñuy wax. Mm-hmm. waruñoo xool lu ñuy neex war nañ ci xool yàlla war nañ ci xool nit ñi. Mm-hmm. lépp lu ñuy def njëriñ nit ñi lañ ci war a xool. man je pense bu ñuy liggéey te mënuñu am épanouissement des populations mënuñu améliorer le bien-être des populations. war nañu taxawaat benn instant. xoolaat xoolaat